man la Modou Fall directeur de l'emploi dañu ñëwoon tey visiter usine bi nga xamante ni nii mooy usine bi defar eau ay nu donc lu ñu fi indi woon aussi partenariat la boo xamante ni dañ ko bëgg am ak euh, entreprise bu ñuy wax euh, Touba agro industrie ki ko jiitee nekk Serigne Ahmadou Badawi Mbacké donc ñu gis biñ ñëwee nii vraiment usine bi li muy recruter ci ay jeunes am na solo lool par rapport ak zone bi mu nekk mais aussi par rapport ak population yi fi ñëw di liggéey nga xam ñu bari ci ñoom ay ndongo daara lañ ñeneen ñi aussi dañoo jóge ci famille yu néew doole. kon installation usine bi ak extension yi nga xamante ni sëriñ bi bëgg na ko def pour gën a élargir euh, entreprise bi jëmale ko ci wàllu mbay dana tax ba xay ndaw ñu bari mën a am xëy ci zone bi. donc moo tax ñu profité ci occasion bi pour féliciter ko tey aussi événement la parce que biñ ñëwee dañu signé ak ñoom convention boo xamante ne ni danañ jël lu toll ci. juróom-ñaar fukki xale ak juróom donc jàppale leen ñu liggéey ci usine bi mais aussi di liggéey ci yeneen activités yi nga xamante ne ni donc moom la Touba agro industrie di développé ci zone bi donc lii mooy li nga xamante ne moo ñu fi indi woon ñuy félicité bu baax di remercier jeune bi euh, sëriñ bi ci initiative bi mu jël nga xamante ni initiative la de développement initiative boo xamante ni dana permettre vraiment ñi fi nekk mën a am ci luñ jàpp te loolu yaakaar naa ni moom lañ soxla ci réew mi ñun aussi loolu lañu ñu sas. moo doon wax mooy bi ñuy ñëw fii aussi jaar nañ ci ay école yoo xamante ne ni moom moo ko tijji ànd ci ak ay partenaire am donc jaar nañ ci ñaari école yoo xamante ni ay école franco arabe lañ ñu fay jàngale religion diine di fa aussi jàngale. lépp lu jëm ci euh, école français bi nga xamante ne ni ministère de l' éducation nationale moo koy supporté ñu jaar aussi ci centre de santé boo xam ne dañ ko installé ci zone boo xamante ne nii ña fa dëkk dañu néew doole donc pour mu jàppale leen ci wàllu santé mu nekk aussi lu am solo école yi aussi constat bi ñu ci def mooy xale ñi ngi fay jàng vraiment te xam nañ ñi jàng moo yore am réew parce que am réew pour mën a développer il faut nit ñi jàng am te gis nañ ni aussi biñ ñëwee ci usine bi woon nañ ñu bari ñi nga xam ne dañuy jaar ci daara yi ak école buñ demee ba génn mag buñ ñëwee danañ jël ci usine bi ñuy liggéey loolu aussi lu am solo la donc kon jàpp naa ni bokk na ci ñi nga xamante ni dañuy créer ay xëy ci liggéey donc nécessité ñu accompagner ko loolu moo tax année bi ñu signé convention bu njëkk ak moom te liñ suñu objectif mooy ñu gën koo yaatal parce que bu mbiram yaatoo rek incha allahu rabbi ñi nga xam ne dañu wut xëy dana yaatu surtout ci rawatina ci zone Touba Bogo bi nga xamante ni dafa bari ñoo xamante ni dañu xaw a néew doole. maa ngi tudd Mame Cheikh Mbaye man maa ngi liggéey fii ci usine Touba Agro Industrie yore responsable production bi euh, ma ñëw tey pour leeralal leen li nga xamante ni si euh, noonu la ñuy doxee ci biir liggéey bi mu jëm ci wàllu production bi euh, tout ce qui est technique man maa koy yore fii dinañ leen ci ñëw incha allahu rabbi di ko commencer ci li nga xamante ni si mooy li nga gëm ne mooy li nga xam ne moo ci gën a fondamental muy hygiène bi loolu ñu ngi ci ñu ngi ci taxaw ci condition yu yu yu yu am solo eh, yoo xamante ne si macha allah eh, xam naa ni directeur bi gis na ko ñu fi teew yi tamit gis nañ ko teg nañ ci seen bët eh, wàllu production bi aussi machines yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser aussi pour liggéey ndox mi mu mu mu jaar ci yoon wax dëgg fa yàlla conditions yi nga xamante ne si moom la ñuy liggéeyee c'est des condition yoo xamante ne c'est abordable ñu ngi leen di wax aussi ne. Euh, matière première bi aussi dañ koy dañ koy importer mais lépp lu xas a dugg ci biir euh, usine bi euh, bala muy génn ci ay conditions yu normal lañ koy liggéeye soufflage bi fii lañ koy defee aussi machine yi soufflé fii lañ nekk ñoo koy embouteillage bi ñoo koy def maanaam ñooy produir butéel bi ñoo koy ëf ñoo koy ñoo koy ñoo koy remplir ñoo ciy duy ndox ñoo koy tëj étiquette bi aussi ñoo ko ciy def ñoo ciy def euh, empreinte bi date bi euh, ñoo koy fardele aussi ñoo koy paqueté mu nekk ay pack yoo xamante ni si six euh, bouteilles lay doon loolu yëpp nag benn ligne la boo xamante ne si moom mooy liggéey liggéey bi fay commencé ci benn chariot élévateur nga xam ne produit bu ñëwee fii boo xasee dem ci chariot bi daanaka kenn dootu ko laal pour ngeen xam ne tout est hygiénique bu ñëwee ba dugg ci biir chariot bi lépp chariot bi moo koy basculer mu wàcc dem ci souffleuse bi jaar ci four bi mu souffler ko gisal ngeen ko seen bopp muy dem ci biir remplisseuse bi kenn du ko laal bu demee foofu aussi remplisseuse bi moom moo koy duyal boppam tëjal ko boppam wala muy génn salle d'embouteillage bi dafay tëju hermétiquement door a génn dem ci convoyeur bi bu ñëwee foofu aussi na fekk étiqueteuse bi mu def étiquette bi bu fa jógee dem ci euh, dateuse bi mu mu date ko bu fa jógee mu door a dem ci euh, fardeleuse bi euh, mu mu mu paqueté ko ay pagu six bouteilles. conditions yi ci yoon bi itam bëgg nañ ci wax. ngeen ngeen sëriñ bi li mu def aha aha gis ngeen liggéey bu rëy bi nga xamante ni si engagé na engagé wu na def ko ci distance bu toll nii gis ngeen Touba ak diggante fii ak Touba sori na trop chaque jour dañuy xëy ñëw fii liggéey si bu ñu wàccee delluwaat mu teg ñu ci conditions yu baax yi tamit ku ne xam na ne fii moom teg fi ni ci ay conditions yu normal yombul waaye dina def tout pour mën ñu teg ci conditions yu normal gis ngeen yoon bi ni mu mel amul benn oto boo fi mën a teg mu daw un oto bu mën a doon yooyu yëpp nag mu ngi ci mu ngi mu ngi mu ngi bokk na ci suñu ay jafe-jafe yu ñuy am fii euh, vraiment loolu nag gën nañu yitteel muy yoon bi yoon bi moom vraiment gars yi sonn nañ coono yi daanaka dëkk di daw ci branram neexul kenn ku ne ci wàllu euh, wér gu yaram ku ne xam na ko bu amee ay gan da ko war a dalal ca dalal bi ca na mu gën a rafete te gën ñëw nañ ñëw ngeen seet suñu ci barab bi ñuy liggéeyee fierté lay doon si ñun am nañ ci mbégte moo xam ne ni wax dëgg fa yàlla yaatu na lool lool lool lool àdduna ak lu ci biir danañ leen ko defar ngir lan jóg ngeen bàyyi seen yitte ñëw fekk suñu fii loolu moom ñu ngi koy rafetlu di leen ci jaajëfal di leen ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax. sëñ maa ngi leen nuyu bu baax di la sant di la gërëm di la dalal jàmm ci sa kër sa kër nga ñëw ànd ak sa njaboot fekk fi sa njaboot kon dalal jàmm di la <clears throat> yóbbante nuyu ak cant ci say kilifa. ndax xam nañu ne ndaw fu mu dem ànd na ci ak ay kilifa kon tàmbalee ci sëriñ daam yegg ba ca kaw ci président de la république ñoo ngi lay yóbbante ay cant ak i ngërëm ci yitte ji ngeen yitte woo njaboot gi di la xamal ne nag ñëw nga ci daara moo tax bi ngay ñëw nga jëkk a jaar ndindi ndindi dëkk la boo xam ne Cheikh Mahamadul Fadil mi ngi ko sañcoon 1913 ci ndigalul Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu di fa jàngale moo tax bi nga ñëwee ñu dugal la ci daara ji wax la ne ku ñëw ci barab la nga fa fekk lañ day teeroo ñu jàngal la alquran gone yoo xam ne macha allah ay tout tànk lañ waaye mokkal nañ alquran nga daara daaree alquran ja waaye gis itam li ñu tuddee école ba fa nekk xool ña fa nekk waaye gis itam nañuy jànge nag loolu tam nga gis ko am na ci solo defe naa gis nga fa ñaari mbaar yoo xam ne mm-hmm. dama leen lii moom moo gën a naqari ci école bi mm-hmm. ndax gone ak nëgë sedd bii nga dugal ko ci maar boo xam ne ngelaw laa ngi koy ëf hmm. mën naa feeñ ci njàngam hmm. nga jóge fa jaar ci beneen école boo xam ne ay tuut tànk yu jigéen a fa ne hmm. ña fay jàngale itam di ay jigéen ñuy wanewaat yarinu lislaam cheikhuna al xadim radiallahu anhu indi wut lu yees ni sallallahu alayhi wa sallam indi woon rek loolu la yaatal dëppale ko fi nu toll contextualiser ko contextualiser ko bu laay mën a wax ba contexte bi ñu dund ñun mu mu mën a dëppoog loolu loolu mooy njàngalem Sëriñ Tuubaa mooy lislaam ci seen rek mooy njàngalem sallallahu alayhi wa sallam cër bi mu jox jigéen nag ku ne xam na ko te ñu bari ñu xamul dañuy jàpp ne fii jigéen ñi fi nekk duñu jàng ah kay dañuy jàng bu baax baax baax ñu jàng bu baax kër njabootu Cheikhuna na Xadim ku jigéen gi goo fi dem daara la daara ji nga duggoon nit classe ba ne dañ ko tudde kenn ci njabatu sëriñ bi soxna moom i na moom Cheikhul gone gu jigéen guñ ko mës a njëkk jox li muy def mooy jàngal ko ay farataam yoo xam ne da ko bind ci ay wali wayi walaf gone gu jigéen gi da koy mokkal xam nu muy jàpp xam nu muy jullee xam nu muy nekkeek ndax euh, at yi ñu defagoon fa ñoo jiitu ci département bi mu doon daara joo xam ne itam daa wuyu dëkk ba ndax wax naa ne daaral la woon bi ko Cheikh Modou Fadel sañcee ci ndigalul sëriñ bi 1913 moom ci boppam moo daan jàngale lu ñu bari xamul Cheikh Modou Fadel ab jàngalekat la woon ni ko sallallahu alayhi wa sallam doone woon ndax moom dafa wax ne dañ maa yónni ngir ma jàngale moo tax ñu ko wuutu nag bu ñu nee diw dafa donn yonent bi mooy dafa donn ab liggéeyam dafa nekk ca la mu nekkoon loo tax ñu naan diw dafa donn yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñi nga xam ne dañoo ñëw nag nekk ca lam nekkoon teg seen tànk fa mu ko tegoon fam la mu doon def rek la ñuy def moo tax Cheikh Amadou Fadel ab jàngalekat la woon bi mu demee ba daara ji xat mu wut ñu koy ja ñuy jàngale mu yoral leen seen lépp tànk yooyu rek la ñuy jéem a rey moo tax ñu def fa jàngukaay yooyu yi nga xam ne gisal ngeen ko seen bopp bu ma jumul fi mu nekk ni romb nañ junni wala jege nañ junni ak juróomi téeméer boo ci boolee daara alxuraan yi sax ëpp nañ loolu waaye nag mu doon école boo xam ne école spéciale ngay mën nañ ko waxee noonu ndax kenn du fay amul inscription amul mensualité dañuy jàngale ngir yàlla loolu itam euh, waa waa inspection bi état bi ñu ngi leen ci sant ndax ñu jox jàngalekat yi hmm. loolu itam kon loolu donte ñun ñoom ñun noo leen di jàppale ndax ñoom ñoom lool loolu seen warteef la ñun kon ñooy góor ku ci ne da ngaa jàpp ne yaay jàppale sa morom ñun defe nañ ne lu ñuy def ci askan wi noonu nga ko defal waaye ñoom nag ñoo yilif askan wi ñoo war a def li ñuy bi ñu fa jógee ñu jaar ci centre de santé ba wér-gu-yaram moom itam ku nekk xam na fi nga xam ne moom la toll moom itam poste la ñu waxoon waaye léegi centre la incha allahu taala dañoo bëgg mu doon hôpital te ñuy def ngir yàlla rek itam ñoo ko fa def waaye moom itam district sanitaire bu Touba indi na fa ay fajkat ngir mu dëppoo ak nekk conforme ak norme ak règle yi nga xam ne moo nekk ci biir Sénégal te ndox ku ne xam na ne ci sunu dëkk bu tedd bi jafe-jafe am na ci hmm. waaye yàlla defal nu fii bët boo xam ne nag barkee ngi ci waaye nag qualité la boo xam ne ci norme yi àddina toll fi mu nekk nii ci gën a baax la bokk ndax ndox la moo xam ne dafa naturel amul benn benn produit chimique bi ci dugg docteur ak ñi mu àndal gisal ngeen seen bopp hmm. ndox mi hmm. te ni ko technicien doon waxe maam dañ ko automatiser maanaam ndox mi bu jógee ci forage bi nga xam ne trois plus de trois cent cinquante mètres la de profondeur bu ci jógee ba ba muy doon juróom-benni butéel yu ñu taxaw téye loxo du ko laal hmm. lépp machine bee koy defal boppam. doon itam machine boo machine yoo xam ne dernière génération la gis ngeen Canada lañ ko jënd woon mu bokk ci machine yi mujj hmm. fi mu nekk nii amagul yu ko mujj hmm. euh, ñu di ko def nag ngir waa Touba am ndox mu sell mu yomb moo tax bokk noog yeneen industrie yi nga xam dañoo jóg rek pour profit bi pas-pas moo ko bëgg moo ko tax a jóg ak nangu ñaanuk Cheikhul Khadim radiyallahu anhu gi nga xam ne ñaanoon na ko boromam ba mu nangul ko ko ndax ne wa maskani sallim fu jaar fujaari wam noon ala al ahli bi ma in jaari dafa ñaanoon suñu borom indil ko ndox mu sell mu doy sëkk mu neex ci dëkkam bi nit ñi di ko naan Touba bëggoog fii yoon wee naqari waaye matul ñaar fukki kilomètre kon ci Touba la bokk ñu di fi jëlee ndox mu sell di ko yóbbu Touba waa Touba di ko naan te daanaka buñ ci mënoon a bañ laaj dara sax duñ ko ci laaj ku wax ab société wax investissement danga wax amortissement loolu moo tax rek li ñu ci laaj waaye boo xoolee par rapport ak yeneen ndox yi nga xam ne bii leen gën qualité fuuf waaye moo gën a yomb rawatina fii ci biir Touba Touba nag bu ñu ko waxee mooy Sénégal ndax Sëñ Touba moo jaboote Sénégal mooy njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy doomu aadama yi képp kuy mbindeef rek ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bokk képp kuy njabootu Seydina Muhammad njabootu Sëñ Touba la moo tax bu ñ nee njabootu Sëñ fépp fu mbindeef nekk sa wàll ngi ci mm-hmm. loolu moo tax ndox mi am na fu mu àgg ci réew ni mu war a yaatoo yaatoogu ko ndax jafe-jafe yu bari yi nga xam ne moo ci am mm-hmm. waxtaan nañ ci ak directeur waaye daal ñi ngi fi nekk di fi tàggat ndaw ñi ni nga ko waxee bu ñu jàngee ba noppi ku ci mën a ñëw fii ñu jaarale la fi ñu la war a jaarale mm-hmm. ba nga mën a liggéey ci usine bi mm-hmm. nga ñëw ku ñu jaarale fi ñu la war a jaarale boo mënee liggéey feneen nga dem liggéey feneen di yóbbante ak cant ba tey sëñ Modou ci sëñ daam ndax am na benn centre de formation professionnelle boo xam ne man yàgg naa ko ñaan damaa gis ne fii ci Touba nit ñi ay jàmbaar lañ li ñuy wax artisan yi xoolal mécanicien yi waaye léegi oto yu yees yi faaw nga xam ko soo ko mën a defar xoolal sunu euh, ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu weñ liggéey yi ñu xam ni mën si métallique yi ni mu ñu jàmbaree waaye nag faw nag ñu gën a xoolaat finition yi xoolal menuisier ñuy defar bant liggéey bi day rafet lool waaye nañ leen bu leen gënee tàggat ñu gën a mën a def ay finition wutal leen ay ay matériel dana mujj duutuñu soxlaa importé dara xoolal électricien yi mm-hmm. da ngay gis saa doo dugg weer ba weer wi dee te déggoo kuñ ne courant da ko noonu lañ ko waxe fii mu ñàkk bakkanam loolu xarañ ngaa des mm-hmm. moo tax ñu bëgg centre de formation boo xam ne ñi jàng ba noppi di liggéey ajjuma mooy mooy sunu mooy sunu bisum nopp lu fii mm-hmm. ku ne ajjuma mën na cee jël ñaari waxtu bu julli jee ba ñëw këram añ daf xewlu daf yëfi ndaw ko ndaa noppalu mën naa ñëw waaxu ci centre ba ñu tàggat ko ñaari waxtu loolu bu ko defee juróom juróom weer dana àgg foo xam ne fu mu lu mu bëgg a defee ci métier am dana ko def gone yi génn ci daara yi te xaw a tuuti ñoom itam ñu man leen a indi foofu ñu ñëw jàng fa ay métiers yoo xam ne bu ñu noppee dañ koy mokkal te jullit lu mu def daf ko war a daf ko daf ko war a xarañe daf ko war a man inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqinahu loolu la sallallahu alayhi wa sallam wax jullit buy defar la mbir da ko war a defar na mu gën a baaxe na mu gën a rafete moo tax kon li ñuy jàng dafa war a mokk loolu mooy tax li ñuy liggéey ñu mën ko liggéey ni ko war a liggéey kon centre formation ba loolu itam jàpp naa ne eh, ña nga ca loolu dama caa bég lool yu mel noonu daal mooy liy tax nga ñëw fii di leen masawu nag ci yoon wu metti bi waaye di sant bu baax a baax ci bàyyi gi xel ndax nit itam fu mu ne soxlawuñu sax xëy na woowuñu kenn ndax ndëgg di mënoon nañ di ko di ko kii waaye dañoo gëm ne rek euh, yàlla mi tax nu koy def mi ngi koy gis euh, Serigne Touba mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ñu koy def ci ci njàngaleem di jéem a xeeñtu mbooram di jéem a teg sunu tànk ci fi mu nu joxañ mi ngi koy gis waaye nag bu ko lii tam dana tax xëy na ku nekk man cee jàpp eh, xëy na it nit gis ko sax rek man cee roy te man sanna sunnatan tan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyama loolu moo tax kon di leen sant bu baax a baax ci yittewoo gi ci tànk yi ci coono yi ba yegg si di ñaan jàppalante gi nga xam ne dox na sunu diggante sunu mu doom def ko mu doon njariñul senegal doon njariñul xeet bi ci barkeb Cheikhuna na Xadim radiyallahu